non dara nekk de lii kay ubbil ma man jëlaguma ko ubbil ko jëpp. kër sëñ ab kër xaas laa dem tey mais daaw seetaan leen en direct. kéemtaan da lay waaj a def kéemtaan kéemtaan lay waaj def ndox la def ci bool bi teg ko ci gaz bi ndox nee ndox la def ci bool bi teg ko ci gaz bi nee daa am lum ci génne ñu xool nag ah Mbaye looy man de waaru. maa la gën man de moom yàgg naa waaru. ndox mi lu ci ndox mi lu ci war a génn. ndox mi lu ci war a nekk. ndox mi lan moo ci war a génn. moo ma ñëpp moom rek xam de ah, ñun tool yi kenn xamu ko. moom. on ba écarté moom. ndox mi la li ci génn kenn xamu ko moom rek a xam de. ci daal bi maam Cheikh Anta bi. kenn du moom ci réew. daal bi maam Cheikh Anta. mën na damaa waaru. ah léegi këy. këy. yow laa jóg xaas. Eh, puusal suñu bi puusal paan bi. jël paan bay. kenn du moom de. ndox mi li ci war a génn këccëb moo ma jaaxal. ah man de ndox mi lu ci war a génn laa bëgg. moo jaaxal ñëpp. kuréel gi. xaaral ma daw man taxawee de. këy. kenn du moom. kii. gars yi kenn du moom de mu ngi wër gaas bi rek. te yeneen nag bu ñëwee ñun ñëpp koy ma door a laal kurus. gàllaaj bi. li koy indi. moo koy indi boppam. <laughs> Ah, ma soxla ñëw. waaw sëñ bi gaz bi lan moo ciy génn. ndox mi lañ wax xam nga tey. su ma soxlaa kii parce que dañuy jël numéro téléphone mu woote mu wuyu ma. Mhm. su ma soxlaa Kouskou Ndour fu <laughs> <laughs> ndeysaan ndeysaan moom na ndeysaan dara mu moom na ndeysaan mënu nañoo yendu hmm. bërëb dem ci àll moo fi yendu laa defal lii ay ay misaal ay kéemtaan xamul tubaab lu mu defee ci bàtti bi hmm. téléphone yi ñuy composé nga ne allo mu ne allo ci biir la nekkee dara looy composé la rek teg ko nag fu wóor. Hmm. te fu wóor man. waaw yaa gis sa bopp ndox moo ko jàppul boppam. man de barke alxuraanu karim maa gis ndox mi. bu jàppul woon du ñëw. ki ko jàpp rek laa ko mën a defal galaaj pour wala nit lu wóor la. Hmm. galaaj bi bu ko. gars yi ñeneen na gaaw sëñ bi fu mu toll. ah laay la àdduna ngi seetaan fi mu ne nii àdduna. ah man daal sëñ bi tey li ma fi indi woon mooy sëñ bi dafa ubbi sëñ bi dafa ubbi centre commercial sëñ Ablaye Diop xaas moo ubbi centre commercial bu mag fii biir Malika ma ñëwoon di xool si centre commercial bi mu ne foog mu def kéemtaan bi ci kanamu kii Babacar bi ah ñu ngi déglu yéeme na de ah man de fii tey bu ma fi gisee lu fi génn moom ma xam ni xam-xam am na. nga génn ko. Ah. ci alxuraan bu génnul ma bàyyi faj. su génnul nga bàyyi faj. te bool bi dara new ci woon nii la meloon ñu def ci ndox. bool bi ndox lañ ci defoon. teg ko ci gaz bi gaz baa ngi baax def na li muy def ci kurus bi ba sànni ko fii. sëñ bi àddunaa ngi seetaan i daal yi mais sa grand gis nga ko mbay ñëpp ngi xaar ak ah, sëñ naan na gaaw na gaaw da la ñuy wax publiquement ah vraiment xam nga xam nga Pape Sala ñëw Kool famille Faye. waaw. juste da cee yem. waaw ma fàcc ci karamu. waaw ah, waaw. tey sëñ bi. tey nag am nga sentir suma yaram. kii mooy sëñ bi. tey dama yóbbu ne bopp dama am lu ma sentir sa yaram. ah waaw waaw loolu la wax. di fajee en direct. Hmm? lu tey rek de. def na ko ngoonal def na ko def na ko wareef ah. ah gaa yi nee na gaaw de sëñ bi gaa yi def na ni yow rek la ñuy xaar. du yokk du ne. fii la ah? fii la tax gaz bi daal mi ñu baax. bool bii la fi def bool bu mel nii. bool bu mel nii te sëñ bi. gars yi buñ ko gëmaatul rek nga dolliwaat ko. si bool bi daal ndox lañu ci def. mbay gars yi nee nañ nga noppi mbay banaana lañ la tuddee léegi mbay banaana. nee nga noppi banaana. ki xawul lool kii nga jàpp woon. Euh, nee na indi fa nga jàpp woon pan be. <laughs> nee na nga jox ko pan. Ah, Babs kaay toog nii ah, affaire bi da nga koy sottiwaat pan bi. Ah. waaw foofu lay génne. waaw keñ <laughs> xool leen fii xool leen de preuve. Euh. ah sinap bi euh, sinap bu xaw ma. Instagram bu ëpp ëpp doole gum ci jamono ji moo tax. tey instant bi moo ëpp doole TFM. Ah. moo ëpp doole. Sen TV moo ëpp doole ñëpp. waaw ko waaw ko. waaw ah. taxaw leen nopp leen nopp leen nopp leen. dafa tàng. dafa tàng. ay. ay. woy sama lay jënd. woy sama lay jënd. ba tey tey bu ni bay tey bu ni bay jën laa ilaha illallah bay jën ak laa ilaha illallah muhammad rasulullah sëñ bi lii nga génnee ci ndox bi lii génn ci ndox mi lii moo génn ci ndox mi lii génn ci ndox mi mais lii mbay Babacar ndox mi ngay jàpp bu ko laal bu ko laal nekk jub. julli ngeen bokk na julli moom. allah ko fi ku jàpp. la ilaha illallah. waaye lii kenn ma ko taxoon. wax sama taxoon. waaw waaw sëñ bi lii fu mu jógee. wax sama taxoon. ah. xam-xam xam-xam lu existe la. lu existe la. wax sama taxoon. waa sëñ bi sëñ bi lii mën nga ma koo dolli laat nii dimbali ma ngir suñu. mën naa la cee defal fukki yoon. waa dimbali ma xoolal defal ma beneen ngir yàlla ñii nii. ah il laa ko. tey Ablaye Diop xaas laa leen di jox direct. six daa indi xa indi la mais toog fii ñu defaat direct. Ah, bu leen seetaan leen film ah, man de man ci laay dox man preuve rek man preuve. daal preuve maak maag samay nit. la illa xaar leen ko mu ñëw rek xaar leen ko mu ñëw day def beneen parce que xaar leen ko mu ñëw damaa bëgg ngeen gis man barki Serigne Saliou ay yëfi gàllaaj indiwu ma fi dara ay yëfi affaire u Serigne dafa ubbi fii en kii nu mu tuddati centre commercial bu mag la ubbi Malika. def fa 32 places. xoolal wuyu. waaw fi ndox deful ndox. Eh. nee baax na waaw bi taalal. mbay bi tëj eh. <laughs> <laughs> meew meew meew bi moom du ma si meew bi moom yàlla tere. man moom bugguma meew bi du ma si naan. defal meew waaw nañ naan ah. eh gars yi loo leen soxla mu génnee fii nee na meew wala lan meew wala lan. waaw meew baax na. ubbiwaatal ndox bi ñu xoolaat ubbiwaatal ndox bi ñu xoolaat. jat nañ. ah jat nga ba pare. jat nga ba pare ah. bu ñu defee meew. bu dee na la première fois loolu problème. Eh! meew. dañuy meew de. dañuy meew de. dañuy man de meew dama ko naan. man de naa ko naan man dama ko naan. man de naa ko naan buy pare ma koy naan. meew dama ko naan. man de gars yi nee nañ meew. meew. ñëw. ñu xaar tuuti meew génn. <laughs> lii nag mooy ambiance dëgg. ambiance dëgg. l'essentiel hmm? la. ay buñ jëloon journée journée lu mu leen a mën a maa ngi xeeñ de. soo ko yàlla. meew gi xëñ de. loo ci xaw ma koy jox. Ah. Eh? day am suukar. meew de eh? ah sëñ bi. meew mbaaru tuuru. naa dañ naan la meew bi pare na. dama waaw damay génneel ci alxuraan ni néew day génn bu génnul ma bàyyi fa. way sama ndey. <laughs> ci bëjjën bi de téere bi de. su ma génnul ma bàyyi fa. laa ilaha illallah. këjëf yaa bëri këjëf nag jinne nga de yow. jinne jaa ngi nii. <laughs> instant bii. sëñ bi gaa lay may. meew mi. mbay daan yow naanal ci meew bi. lu tax naan ci meew bi. yow di nga naan. day daw sama biir meew. man de booy xel di ma day daw sama biir. buy xel di naan. jàmbaar Ilaah day xaas. ku la yem daal dina la waaye soo nee soo nee jàkk taxaw. jënd la li ci man li ci bi laa yàq dama bëgg preuve. moom moom loolu la bëgg. preuve. ku la yem daal dina la. Sénégalais daa gaaw weddi. foog muy gis. man ñii ci laa bokk foog muy gis mu leer. ci émission naan bopp dumatuma preuve. kañ. ci ndoom xaas. ah gis nañu fi ñëpp lañ yóbbu faar. waaw ku ciy wax. ay de na ñu naan de. Eh, eh, eh, des na des na. gis naa toq mais dafa xaw a yolom tuuti. we téyegul. nu mu meew bi téyegul. mais gis naa lu weex lu tuuru moom. waaye ndox la ndox moo oyof. dinanmiyorlar inşallah. Ara kaas waay. Eh. Bay jox ko foofu kaas. Eh. non fii dugal ñu ne ko. Kaay bay kaay. Néeg boobu mais bi dinañu xaar. mooy yéen dinañ naan may naan ba xaabaar la. Hmm? man damay naan kii la. kaas baa ngi nii. donc daal on est sama kaas. mbay daa ragal kii daa ragal meew. moom li ma ci leer jàmbaar. barke Serigne kii daa ragal meew bi Babs. jàmbaar amul am gëm. bismillahi rahmaani rahim. Eh, xaaral xaaral ma kii bala kaala. barke am Quran barke am Quran yàlla rek ko man. Hmm? du ma lépp la ñu fi yàlla. ndeysaan. ay dalal ci yàlla. xam nga adduna moom dama wax. Hmm, jéem bu mhm. maa ngi nii. laa ilaha bi affaire yu ñuul yi di ci meew bi nag. meew ma. meew bee ilaha illallah teg ndox kese. ndox kese dana teg mu doon man fi mu ne nii sokke man. meew bi fi meew génn fi. te nee kii nga la yow. la ilaha illallah. ñëwal su laay subulu. jigéen kenn du yow. macha allah mais la bourgeoise. mais sa jabar ji réew mi ko bëgg. xanaa xamoo sànq ba tey ñu koy ñu ngi koy laajte. ba tey nit ñaa ngi koy laajte. sànq ba tey nit ñaa ngi koy laajte. ah ay madame. madame. madame sëñ bi nee nañu baal la. madame ah, waaw damay am lu may àggali tuuti. Oh. <laughs> Eh, madame Blue. waaw ah, waaw bàyyi tuuti ñu pare gi ñëw. lay lay la kër gi neex na. macha allah. lii. mais meew ngi ni de meew. waaw yow man maa ngi nee nañ meewu jinne la de wóorul naan. ah meew bi de man. lay lay la laaw. man maa naan. waaw ñu naan. laa illah. ay waay. indi ndox ndox rek. mu nekk meew mu nekk meew. ah sëriñ man mënu ma koo gis man. ñengo yi ah. lii ñengo la wala lan la nii. ñengo dafa am. boo dégg loo ñu tudd ñu ci yàlla ñengo waaye loo gis ñu tudd ci yàlla. waaw ah. gis nga alxuraan. Hmm. xam nga tegoon naa fi carton di ci ataaya ñu wax ma ne. waaw alxuraan waaw. man lu ci ëpp ne moom xëy na ñàkk xamu waral lu bari hmm. maa farax na min ci tey yoon incha allah lépp a ngi ci alxuraan. est-ce que lépp a ngi ci alxuraan. xëy ñaar am nag xam ko wala ñàkk ko. tey. da ngay neex mu may xet neex <laughs> ah man de meew bi day day daw suma biir moo tax meew bi moom day daw suma biir ah mbay. doon naan. dinaa lay naan man naanu ma rek. dinaa la dinaa la naan saf na suukar saf na daf ne woon day am suukar. <laughs> non na suukar am na suukar. ah man kañ baax na. doy na déedéet man kañ baax man sama biir bi lay daw moo tax. doy na sëg. laa ilaha illallah. ah. ah déedéet ay question kii biir bi moom bëggul meew man du naan meew naturel meew moom du naan.

waaw waaw. looy def ci dëgg. gis ku ne xam nga day wax tey su ma la ko waxoon. barke alxuraan naa kay man noonu laay laaj dibi man leen beneen yoon. dibi la ñuy barke sëñ Saalum ñoom ñëpp dibi la laaj. xam nga amoon na fi dibi xoolal dibi la laaj. xam nga sëñ Basiru sëñ Basiru <laughs> <laughs> bàyyi tooñ tooñ baaxul. <laughs> waaw waaw bàyyi loolu. bàyyi gis nga sëñ bi duggul tooñ. man fal semblant kooku yor man maay